tu as da nga da bëre si ñaari facette. waaw sa première euh, sa première euh, kii temps. Mhm. da ko bëree avec consigne. Mhm. ba ngeen demee nag ba yëg ni xam ni. ba mu ñamee waaj. waaw ba nga ñamee kii nag. nga soog a nga soog a ñëw nag. <laughs> bëree bëree sa bëree. Mhm. donc moom ah, su fekkee noonu dafa ñëw initiative am. keroog si combat boobu mënoon na am dara. mënoon na ci am dara ca commencement ba buñ ko libéré woon. voilà suñ ko libéré woon. buñ ko libéré woon mais kenn libéré wu ko woon. Mhm. donc loolu moo tax vraiment je pense que ni. ah kii du kooku mais mais damay damay wax rek. Euh, Az gis nga Modou Lo c'est le roi donc Siteu normalement. Mhm. xam na ni il a un combat royal. il a un défi à relever. xam nga lu tax. Siteu ba mu paree ci Lac de dafa ñëw toog fii. Mhm. ñu wax ko mu ne leen fay leen ma cent cinquante million damay. damay bëri ma bëri Balla Gaye waaw boobu am na lu mu yëg ci moom xam na lu mu lu mu lu mu yor xam na lu mu yor. après le combat sentir na. Ah, waa sentir na boppam ni fii laa yor fii laa tollu léegi. Mhm. te mbër su tolloo foofu jaratul jaratul ñu koy wax dara. Mhm. waaw parce que su boobaa day demal boppam. Mhm. mais Modou Lo euh, encore une fois c'est le roi mhm. te sànq d'accord ma euh, buur buur ci bi muy wax ni day pourquoi le combat de moom ak euh, Tafatine Tafatine amul du ci moom man xam naa ni du ci moom parce que Modou. est-ce que non Kayre wax nga ko non ah. Kayre nee na la promoteur yi bëgguñu woon boobu combat. voilà c'est-à-dire. wala boog doxuñu ko. voilà loolu loolu benn aspect bi la. beneen aspect bi mais Modou Lo tollu guddi yi ñu toll ay combat du dépendre ci moom. no beneen aspect bi si. waaw waaw bien sûr ay combat Modou ci lom lamb. ndax ay combat wu Modou Lo du dépendre ci Modou Lo le roi des arènes. effectivement effectivement day day mais mais non da ngay toll foofu am. mais ah, mais man je dis Modou Lo cest dans son cursus. Mhm. dans son cursus. comme que éviter wul ay woon ñoom bombardier ak ñeneen ñeeg ñeneen. amul ku muy éviter amul ku muy éviter. yaakaaruma loolu donc moom peut-être combat moog Tapha Tine. mais Babacar foofu tamit da koy def benn point. Eh, mais du benn. du benn. combat yi nga bëgg a déggee daal yi bokkut ak bi nga déggee daal yi ba pare. loolu il faut ngeen ko sóoraale. waaw Modou Lo bi muy ciblé Bombardier boobu ciblé Eumeu Sène boobu dafa am lu ñooñu nekkoon lu mu bëgg a nekk. mais mooy dégg du roi ah, des arènes. raison dafa nak rek ma ñëw Babacar. Ah, loolu dama la ciy moo dafay ñëw Modou Lo bi muy ciblé Serigne Dia ay combat moom mu bëri ko par partenariat. déedéet daf bëggoon daf bëggoon nekk nag. foofu nag dafa lu mu woon léegi nag bi mu demee ba nekk roi des arènes léegi day xool yan combat moo ko gën a jublu ci carrière am yi nga xam ne ndax Modou Lo dafa am communication boo xam ne da ko réussir te mbëri ma réussiruñ ko mooy su ma nekkee roi des arènes damay may xale yi sens. te xale yii muy may sance ñi Modou Lo dajeegum yëpp am na lu muy wane ci seen diggante ak ñoom mooy am naa lu ma leen rawee lan moo tax may mais Modou Lo tey jii moo raw rëg rëg waaw lan mooy loolu. waaw dañuy waxtaan moo ko raw. waaw Reug Reug Modou Lo bëri naa Bombardier ko Reug Reug daan ko waaye Modou Lo la âge dafa am raw mais noonu la rawee la leen âge ah. moo raw moo rawoon moo posé la question moo moo raw Siteu bëree mais ñu ngi dañoo daan ñu Modou Lo daanut. mais pourquoi il fuit Tapha Tine. am Boy Niang daan Balla Gaye. Modou Ama Baldé daan Tapha te ñun Modou Lo leen. Bombardier mi daan ko daan. bi muy daan Bombardier. boo fekk na Modou daan ay adversaires yoo xam ne nii Rëg Rëg mu ngi dafa bëri woon ak ñooñu mais Ama Baldé. Sappali Sappali du Bombardier man li ma jàpp. Modou moo bëgg a baliser couloiru boppam fi mu bëgg a jaar. waaw loolu am na mais dama lay dama lay wax léegi combat bi. non mu si waaw film démb mais si si. Max dem na ci Alboraax. Mm-hmm. waaw loolu de loolu jar naa leeral de. waxtaan na noog moom ba jubóog moom ba bind chèque yi ba dara desul lu dul signé. Siteu moo toll ca Amérique woote ni leen def leen nànk. am na luy xeeñ. am na luy xeeñ. man kat du ma fi gis combat royal. effectivement il di bëre beneen combat bu dul combat royal. peut-être lu mu laajoon fii si plateau bi. waaw peut-être loolu la am. parce que si dem jëli ko mënta gis Modou Lo. dem di xaari xaar te xamoo kañ la. Ama Baldé Gris Bordeaux kenn mm-hmm. xamul kañ la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw te lii novembre la. te lii am na ba pare. mi mm-hmm. ah, ngi nii Modou Lo ngi nii boobu mois de juin la woon de. ban combat. Ama Baldé ak euh, Gris. Gris waaw loolu la wax da ngay loolu la mais da ngay xaar xam nga xaar bi daal di wax xam la ñëw xam nga juin. juillet août saison bi tëj. waaw. léegi saison bi tëj tëj mu mois de mais le cinq mai. mais Gris Bordeaux Ama Balde. ñu ngi ko jàpp mois de juin. xam nga juin la waaw ah, c'est-à-dire mbër moo gis eh, mbër mu ndaw moo gis. waaw li xelam nekkee mooy jëli roi des arènes. Mm-hmm. Mm-hmm. doon sa carrière nga doon roi des arènes kooku gloire la. waaw ah, gloire la l'histoire day retiendra. Mm-hmm. day bokk ci annales de la les annales de la lutte. waay diw diw. comme ni ñu koy tuddee ci manga ak yooyu. waaw jëkki nekk ñu ainsi de suite. loolu kuy mbër mu ndaw loolu ngay rêvé. léegi si tey jékki-jékki am opportunité. am opportunité opportunité dem na mën naa dem bëre jékki. loolu roi de arènes. te mën na am sax ba si cachet yi lañ koy fay si cachet contre roi des arènes sax bu doon am du ko am fële. waaw ah, ah, dëgg la mhm. ñoom ñoo xam. c'est ça mais daal li ciy priorité doon chance am mooy lii da ngay xaar te lii lu teew la te roi des arènes ngay bëreel. Mhm. te mën na ko jëli. Mhm. da koy jëli bëri jéeg moom. bëri jéeg moom tout wax ngeen lu am solo euh, Babacar. mbër des fois ci science nga jox ko cër trop bàyyi ko xel. parce que maanaam fam dimension yam yam fekkoon Lac de Guiers 2 la mhm. c'est fallait euh, il fallait aussi te début il faut mu douter c'est normal mhm. man damay wax en tant que sportif mhm. parce que dayoo ba Lac de Guiers am masse musculaire bi ak Lac fa mu jógoon bëgg ne kut kooku damay daan Siteu moo tax début combat bi il fallait Siteu attentif tuuti mais bañ demee ba ci biir combat bi ba mu gis ba mu gis jàppante bi ñu xëy xam nga mu natt dooleem. si la xam ne man ah man kat. waa ji mënulu ma dara waa ji mënulu ma daal di fa bëri nag. combat bu metti la bëri bu normal la bëri. Mm-hmm. Modou Lo euh, kii da koy wax c'est le roi de arènes. il mm-hmm. loolu ñëpp nangu ko. mais explosivité bi ne si Modou dafa nekkul actuellement ci yenn gars yi. Mm-hmm. dafa newul ci booy yi sax ngay wax newul ci booy yi ma lay wax de que boo xoolee explosif moom la daanee Mhm. Ama Baldé explosif moom la daane Boy Niang Boy Niang mhm. te explosivité boobu dafa xawoon des ci Lac de mhm. xam naa système d'entraînement yi Modou actuellement il s'entraîne avec des coachs yu aguerris yi bu ne dafa ko am nu mu koy aborder je pense que ne nag combat bu capital la pour moom pour Siteu waaye nag Siteu aussi war na pare xam na nag mi ngi doog am combat bu bu bu garaaw a garaaw <laughs> parce que Modou man ni ma gisee uh-huh. dafa xaw a iñaan ci couronne bi ci couronne bi. <laughs> Ah <laughs> te ki koy daani. waaw il faut nga. mais il a raison que comprendre nga. Mm. moo tax combat boo xam ne daal bon. donc te gis nga Kayre doguma la sax. gis nga Modou Lo. Mm-hmm. à part le combat physique. Mm-hmm. il a un combat psychologique. Mm-hmm. très fort bu muy mënee. contre ses adversaires ñun ñuy nekk ci dans l'enceinte. bi mu changé ak léegi. non c'est-à-dire loolu daf ko ama wala loolu yàgg na. non da ko doon def d'une façon. Hmm. Euh, un peu kii quoi mooy instant yi ngay wàccee micro bi. waa waaw comprendre. mais bii. c'est-à-dire. mais il a non il n'a pa changé du tout Modou Lo n'a pas du tout changé. il la évolué. Euh, euh, a mûri quoi. c'est-à-dire il est il beaucoup plus professionnel. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. dans tous ses actes il est devenu beaucoup plus professionnel moom. combat psychologique bi da koy mener dans l'enceinte mhm. avant que combat physique bi di commencer mhm. donc mhm. c'est un atout bu muy am benn ascendance bu muy am psychologiquement ci ci ci ci adversaire ci adversaire beneen bi aussi doguma la Bécaye parce que dama euh, bëgg ñu ñëw léegi nag ci la guerre des il faut ci la dugg ñu bàyyi xel aussi Reug Reug attention mu ngi aussi il faut ñu bàyyi ko xel. te te dafa lancé parce que xam nga xam nga rek dafa dafa dafa dafa dafa def ci làmb simple. <laughs> dafa def ci làmb simple. Mm-hmm. séeréer sax nangu nañ loolu. Mm-hmm. que ne kii li mu def ci làmb simple sax est ce que doomu séeréer mos na ko def. non mm-hmm. que mos nañ ko def. seen rëg rëg waaw mu ñëw dugg ci arène bi. na xare daan donc boolee maîtriser lu simple bële. ak bëre door bi dem jàngi est ce que comprendre nga. donc li tax Modou rëg rëg defiyee ko. te nangu ko bon je pense ne xam na ne c'est un mun nañu bëre ji nag Mhm. <laughs> dégg nga. Ah non danañ bëre danañ bëre ji. mais mais forcé forcément mu mu bëre franc aussi. des fois yoon wi léegi ah, xam nga tamit yoon wi léegi. loolu de la non non Reug Reug il faut mu bëre franc. gars yi gis nga yoon wi léegi kay bu daanee bombardier par force la. dañuy daj waaw loolu la xanaa xam loolu ah, moo tax. waaw gis nga yoon bi léegi bombardier moo leen di boole. oui gis nga yoon bi léegi. lamb moo amatul yoon wi léegi fanam yoon wi. waaw gars yi dañuy xool yéen fi ñu jaar léegi de. waaw <laughs> eh, mais attends voilà. li ma yoon yi léegi. est-ce que mbër yi ñooy xool fu ñu jaar wala promoteur yi ñooy wut fu ñu jaar préparé. non non gis ah, dafa am lu ma mës a gëm. Hmm. te dama ko mës a wax xëy na Reug Reug toog na fii ma wax ko. Hmm. mer. Hmm. gisaguma sur cette génération qui peut vaincre Modou Lo. c'est loolu foo ko teg waaw. xam nga li tax. Fara Modou Lo il est unique dans son genre. <laughs> mais xanaa xamoo làmb. non xaaral âge. <laughs> mais as li li buur wax maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw non maa ngi ñëw mais maa ngi ñëw mais maa ngi ñëw mais buur xam nga def non non maa mu développé baay baal non non mais baay bëggee sax di nga di waaw mais baay bëggee ko di nga d'accord maa ko bañ xam nga tey waaw mais non baay baal non baay baal man maa wax non baay baal non man maa doon wax man maa doon wax il m'a coupé la parole déedéet non man maa doon wax non non déglu ma rek man maa doon wax da may bàyyi ba ma yegg li non baay da may bàyyi ba yegg li non oui li nga baay baal mu yi xoolal gis nga loolu gëma ko woon waaw dama ni man gëma ko woon keneen ak keneen gëma ko woon du ñooñu booy du ñooñu du ñooñu ngay wax dama la Siteu à tout moment sëñ bi mën naa daan weddiwuma loolu d'accord naa taarix maye na loolu taarix li wax nii taarix maye na loolu bu yaakaara ni foofoo gënoon nooy ba mu dugg ci céréer de booy nàkk rek duñ toll ni mbër kaamil la sëñ bi loolu lépp loolu nangu naa ko beneen Siteu ngay gis nangu naa loolu na expérience mais je vous quelque chose expérience li ma leen di wax nii jàpp leen ko. Mhm. gisaguma qui peut arrêter Modou Lo sur cette génération. qui arrêtera Modou Lo gisuma ko. <laughs> kon qui arrêtera Modou ñëwaat na ko violence bi ne si Modou Lo. violence Modou Lo est un lutteur très violent. agressivité. il est très eh, eh, agressif. Eh. waaye loolu du tee mbër daanu. xam nga xam nga xam nga gars yi ah man daal sax du am benn point bu may wax. mbër làmb la làmb da ngay làmb rek. âge ndeysaan kayre âge man sama rêve âge man sama rêve mooy lenn. loo doon keroog bi Bombardier di dóor tey jii mu daanu ci làmb diggu Demba Diop. kenn fekk ko kenn gëm waaye xamul sax loolu. ban Bombardier moo préparé wu. tey xale. ah foofu laay waxee. xale. âge dama ne. et eh, même eh, Modou Lo man li ma lay wax nii dafa jar a bàyyi xel. Modou Lo wane na ci làmb lu kenn wane wut Siteu bu fekkoon daa tëdd di nelaw du bëri Modou ndax def ay preuve moo tax mu bëri Modou Lo. kay. preuve yooyu mu def rek daa am li kuy tegu man maa ko wax te li may wax ni si tàng li toog jàkkaarloog man mbër moo mënti pare ci Sénégal ak mbër mii ngay dégal du benn. Hmm. uti jilloo amutoon uti jilloo mës am nar a jaral loo mës def nar a jaral foo mës ta tëdd nga ndax Modou Lo c'est quelqu'un ak yeneen mbër yi. may gis bokkut ak kenn mais nag mbër gars yi làmb. da ngay daan da ngay daan. Mm-hmm. <laughs> parce que bi ngay yëkkati yëkkati da ngeen la ilaha illallah ba tey as. as waxet mbër mu mag mu mënti gis mbër mu mag mu fa jëlee da koo jaraloon kii extraterrestre la du ñooñu ma dama bëgg Siteu mu won sénégalais yi ne moom mérite na pour nekk roi des arènes kan te Siteu daa war a won sénégalais yi ne leen man mérite naa pour war a mën nekk roi des arènes attends man je sais pas yàlla mooy wax kii daan bu Siteu daanoon Modou Lo Siteu day doon roi des arènes. waaw oui ah mais kaay la ñu waxtaan ak yéen tamit. ah mais ah loolu ci bëgg a. ah mais ah loolu d'accord loolu fi am. loolu ko mën ko bañ bi moom roi roi de Kaaf mais non non ci Lac mhm. ah, ba pare ñoo bëgg a. maanaam euh, euh, échec ci Sa Thiès. échec ci Sa Thiès ci guy gi ah, échec ca ca Boy Sey. effectivement ba pare nga ñëw daan benn benn. ah xam nga waxoon naa ko fi. moo tax sànq je vous ai posé la question ak Ama nga. waaw naa. ko tuddee ku daan roi roi laa ko commencé woon wax. est ce que Ama Baldé bu daanee boo Modou Lo. day nekk roi des arènes. gars ñu waxtaan problème mu roi des arènes bi CNG war na ko seetaan. mais effectivement parce que lamb ji dafa changé. effectivement lamb ji dafa changé. effectivement mën mën na daan làmb la mën naa daan Modou Lo loolu loolu kenn waxaliwu ko Modou Lo naa daan Siteu ma kenn du ko wax. Hmm. parce que xam na ni Modou daa mën a daan. âge ah, Modou Lo dafa mais Siteu bu daanoon Modou Lo hmm. ñu koy wax roi des arènes fu koy teg. xoolal âge ah, mais day doon logique parce que. lan euh, waa concept bi loolu la parce que concept bi mooy que. daan roi des arènes rek roi des arènes nga parce que c'est pas du loo xam ne c'est organisé nee nañ ñu ngi ko organisé depuis mais ñaari concept moo am nag. ok dafa am concept boo xam ni. c'est le CNG. waaw mhm. nga xam ni c'était organiser mhm. avec benn seul roi lañ mës a désigné. muy Manga muy Manga 2. beneen concept bi nag. conscience collective amateur yeeg. ak presse monde lamb ak presse beeg. ak presse bi ñoo ñoo ñoo ko indi. ñoo ko indi xam nga. tey mais loolu dañ koy nangu aussi. tey waaw nangu nan ko sax. non mais nag quand même nag am na ci ñoo xam ne bu ñu fii ñu toll nii. <laughs> danoo war a rëbb danoo war a baatare waat carte. carte gi xoolaat. ah Modou Lo dafa am ñetti adversaire commun yoo xam ni qu'il pleut ou qu'il neige mu dem Umra aji màkk ñëwaat neex neex naqare ñu ngi koy xaar. muy kan ak benn bi Saliou a koy xaar Sa Thiès. Mhm. Mhm. waa mu neex ak mu naqari. Mhm. digganteem ak Tapha Tine munu ci dara. non non du bëri. non xaaral dafa nag maa ngi ñëw âge. beneen bi ci des mooy Omar Kane Reug Reug bu jaa mara jàll la ma ko opaajam. donc mu neex ak mu naqari. gis nga Modou Lo. moo la gën a xam li muy def. adversaire bu ci nekk natt na sa dayoo. natt na fon nga mën a jëm ak yow. Modou lool dama ni ku dul alias man alias cukkali Fawzayni mën a góor ci moom dara ci xarnu bii lii la yàlla dogal te gis nga as Sabax Jali muus la de je ne je ne sous-estime pas les autres Siteu non non non non non non je sais au contraire Siteu a mérite Siteu il mérite de maanaam de lutter un combat mais mais mais mérite bi sax ci Siteu la nag mais de lutter avec mais dama ni âge kii ma gis oustaz mii dama ne la kamikaze la. mais personne mais léegi dañuy jéggi man damay nangu kon bu boobaa. barke alxuraan dañuy jéggi bu boobaa damay nangu man tarki ndaala. gis nga bu boobaa damay nangu ak humilité kaay leen <laughs> beneen waxtaan bi mooy. daan ak daanu amatul njëriñ ci làmb ji da ngay daanu am combat bu ba nga amoon. te bu jëkkoon boo daanoo ci turu kàmb gi ngay jëm. Hmm. léegi boo daanoo doo dem ci kàmb gi yaa ah, da ngay gën a am ko doole. kayra loolu lan la. loolu damay ñëwaat ci promoteur mën naa la jox exemple yi bu la neexee ah man. waaw joxeel waaw naa laa jox exemple ci Boy Niang. mën naa laa jox exemple ci Siteu mii. Mm-hmm. mën naa laa jox exemple ci euh, rëg-rëg ba mu daanoo ca Sa Thiès. Mm-hmm. mën naa laa jox exemple ci Ama Baldé moom it ba mu daanoo ak Bébé Diène ah. mm-hmm. ak bébé Diène ak bébé Diène ak bébé Diène dafa daanu ba pare ñaabu ndaw ñaabu ndaw ñaabu ndaw ama neex xam nga yooyu yëpp mooy yi nga xamante léegi da boo daanoo sax yow fexeel ba populaire rek mm-hmm. geeru xaalis la geeru xaalis mooy li ma la daanoo boo daanoo wàññiwul la dara moom laa wax tout à l'heure rek euh, ku ci yebu rek fexe fa nga dëkk saa yoo jógee mu neex mu naqare nañ lay topp rek àndal ak say mbokk àndal ak say mbokk saa yoo jógee ñu jóg mm-hmm. parce que léegi fa que comme ni nga ko limee nii bekkaay léegi la toll mm-hmm. soo daan boo logique boobu amatul logique. ok que li indi loolu mooy promoteurs yi ñoo ñoo am euh, euh, y' a quatre ans ci ginnaaw dañu xawoon rafetlu ay promoteur mhm. mais dañ jékki-jékki gis nga euh, Alburax ñëw. jàmbaar ñëw ak yeneen promoteur yoo xam ne ñu ngi fi di. di promouvoir xale yi boo xoolee deux ans yi ñu génn. mais mhm. làmb ji dafa am benn niveau bu grave bu mu yéeg. Mhm. bu yéeg ci ay combat xam nga léegi nag mbëri ñoo war am compréhension bu xam ne léegi toogat fi di xaar. wala nga amatul solo làmb ji moo jaxasoo léegi. dañuy liggéey léegi da ngay liggéey. business bi daal li ma doon wax li ma ubbee moom nekk ci làmb ji léegi. Mhm. di féliciter euh, comme le gars un gars comme Zarko xoolal. Mhm. xëy na combat bi sax moom Bébé Diène moo ko freiné mais moom moom mënoon na sax jëlaat yeneen quatre avance. fa la làmb ji toll la parce que at ci dootu leen fi xaar léegi. voilà léegi foofu tamit daf naa ne dinañ ci dellu si fu bu baax. Mhm. mooy vraiment dañ koy mbër yi dañ koy mereet te ci seen biir. pour pourquoi ngay bëreek tiw ba pare nga jël avance ci suuf mais est-ce que làmb tolluwul foofu actuellement nii. Mhm. par exemple nga dëkk Pikine Ama Balde mi ngi.